bi dinay taxawal askan wi am baat bu jóge ci son excellence monsieur le président de la république à travers le suffrage universel waaye ñii nga xamante ni ci gox goxaan yi tamit ñoo fa teewal askan wi ay banqaas lañu yu bokk ci état bi loolu moo indi décentralisation ba tax na fekk nañ ñu bokk ci état boobu ñu ràññee ci kii di Barthélémy Diaz ràññee ci kii di maire Seydina Issa waaye ràññee ci meeru Cambérène Doune ak meeru Ngor meeru Wakam ak maire yi jóge Malika ak Thiaroye-sur-Mer ñooñu ñëpp ñu ngi jël nuyoo yi gën a tedd nuyoo yi gën a sel di ko teg ci loxo Mame Libaas ngir mu jottalil ñu ko xalif bi di Seydi Mouhamadou Mokhtar Laye ak njabootu Maam Limaamu Laay gépp di jël nuyoo bi ñu yàlla sant di ko teg ci sa loxo muy assalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu kon tey ñëw nañ fii ni ma ko waxee léegi teew ci appel bi nga xamante ni mi ngi dëppoo ak téeméer ak ñeent fukk ak ñetteelu anniversaire ginnaaw bi suñu maam ju baax jooju di Seydina Limaamu woote woote woon woote bu rëy boobu woote woon te kenn taxu ko woon a jóg lu dul jaami yàlla yi ñu ràññee ci nit ñi ak jinne yi ana ci lan la leen woo daf leen woo ngir wommat leen jëmale leen ci borom bi yeesal li nga xamante ni moo fi jotoon a jib ñi ko jiitu woon liggéey ko kon su fekkente ni teew nañ fii gis wax ji rafet ji Seydina Isaa bu suñu bay lay Thiaw wax léegi jibal bakk yi nga xamante ni ju jóge na ci kër diine yi dañ ci sukkandiku ngir wax ni ñun de ku am leneen na jël waaye li ñu am Sénégal doy nañu ndax li ko waral mooy jibal nañ fi léegi bàkku Tiwaawan muy Seydi Aji Malick Sy doomam ju baax ji di Serigne Khalifa Ababacar si radiyallahu taala àndu dafa am lu mu waxoon mu nit mësaan ñëw ci moom ni ko àll de mat te ñee mat mu ni aha kañ àll kañ mat naa ñee mat ndax àll ba ko amul waaye ñun ñii di Sénégal mat nañoo ñee ndax ñun la yàlla muurloo Seydina Limaamu kon loolu ñu teg suñu tànk suñu mat ñu baax ñi nampal ñu ci teg ci suñu tànk duñ ko teggi mukk ba kereeg ñu leen di fekk loolu nag mooy lislaam sama xarit di suma wóllëree yaramam sutante mu jot ma léegi téléphone di Seydina Mamadou Lamine Lay dafa wax keroog wax bu am solo ni tarixa yi ñu koy wax plurielu arab turuux ay yoon la rek mu ngi mel ni nga bëgg a ñëw yof jàmmalay amaana mën ngaa jaar ci géej gi ñëw mën ngaa jaar ci jéeri ji ñëw waaye ñëpp fii la ñuy sooyee muy bërëbu Seydina Limaamu Laay al Mahdi loolu nag xam gu ko son excellence monsieur le président de la république Macky sàll xam moo tax lépp loo xamante ni këru diine yëkkati na ko fii ci senegal mu bokk ànd ceeg ñoom liggéey ko ak ñoom ba noppi xam ni dafa yole wàllu àdduna bi waaye wàllu jikko yi ak wàllu xol yi yéen a ko yor te bu doon wërsëg wi nekk ci àdduna yépp tuuru na fii ci suñu réew te xol yi baaxuñu jikko yu baaxuñu du am njariñ ndax bëri na ay réew yoo xamante ni ñoo ñu ëpp gàncax bëri na ay réew yoo xamante ni ñoo ñu ëpp meññeef bëri na ay réew yoo xamante ni ñoo ñu ëpp wërsëg waaye mënuñu koo jariñoo ndax jàmm amu fa moo tax damay rafetlu thème bi nga xamante ni tànn ngeen ko muy paix et développement selon les enseignements de Seydina Limamou waaye nag loolu buñ ci taxawee tuuti dinañ gis ni Seydina Limaamu moom loolu noppi na ci ndaxte ki la jàngal ni bu la nit dabee sa kurus dagg sa kurus foral say per nga dem kooku moo jàngal non violence laata ñuy xam Gandhi laata ñuy xam Martin Luther King loolu waral na lii nga xamante ni son excellence monsieur le président de la république Macky Sall sumb na ko ci këri diine yi muy programme de modernisation des cités religieuses doxal na ko ba yëg si fii nga xamante ni mooy yoof préwo bii ñu nekk ci suñu wet bi ñu ñëwee keroog directeur général AGETIP mi ngi ko koy présenté di ko wax finition yi fi ñu toll ak programme Promoville bi nga xamante ni bu noppee dafa war a daj lépp li nga xamante ni mooy gox bi ci loolu la nekk ci loolu lay wëy moo tax fële tamit ci Cambérène gis ngeen liggéey bu rafet bu sell bu mag bi mu fa def nekk ci wetu bërëbu Seydina Issa loolu daal mooy li nga xamante ni waxoon na ni su ma ñëwee naa ko séddoo ak yéen di nag sàkku ñaan ngeen jottalil ko nii mi ngi sàkku sëriñ bi ñaanal réew mi ñaanal réew mi mu am jàmm ñaanal réew mi mu am dal ñaanal réew mi ni ko sëriñ Abdou Aziz Sy Dabakh daan waxee suñu borom tappe xol yi yàlla sotti fi sutura sotti fi xéewal sotti fi naataange wasalaamualeykum wa rahmatullah wa taala